jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax ne tey nag ñoo ngi Medina seet si ki xamante ni mooy ñagas ñagas démb moo doon bëre ak ki nga xamante ni mooy Gorofil démb lu mbokk yi ci arène nationale démb nag yàlla dogal na daan na jël bëri ki nga xamante ni mooy Gorofil mbokk yi ma fàttali leen ko ñagas moo ngi ci six combats six victoire ma bàyyi leen ko mu nuyoo ñu doog ko wéyal waxtaan wi ñagas nuyu naa la aùzu billaahi mina seytaani rajiim sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñaari baax a baax waaw di sant ñi fi teew ñëpp di sant sama gaay ma àndal waaw maa leen di sant bu baax baax leen gërëm euh, nga doon wàcc sa combat yow ak euh, Gros File lan moo dugal ci Gros File waaw ñàkk adversaire rek gaay ma war a jël jëluñu ma ku jox sama combat mu bañ ah léegi nag gaay dem seetaat Gros File parce que moom combat bee passé ne problème xaalis moo taxaw jëlu léegi petit wax ak moom ñu juboo si cadre xaalis après moom mu jël ko problème xaalis moom moo ko dugal si combat bi mais du caageen daf ma ñemee wala ñoom seen xaalis moom dafa am problème xaalis waaw problème xaalis ah événement tabaski ni jub si kay boo amul xaalis amoo liggéey bu baax kay su la joxee kombaa nga jël rek hmm. xam na ngay daan mais ñu gis sa diggante yow ak moom coow li bàyyi woon lan la dafa am fu ngeen tase wala dafa am lu ngeen bokk wala lan la xam nga booy jàmm nga nii xam nga leen ñoom ay ndelumaan lañu wax rek lañu dëgg fi wax rek ñoom moom ku ci am ak ñoom combat yaakaar na wax moo lay daane waaw lam ji dem na ba grand combat bi sax lam bi moo ko bës ndaxte foo tollu góor fii la ngi wax waaw guddeeg bëccëg yow tamit yow tamit noppi woo woon lu may wax man ar bu ñu waxee rek man ne xam moom lépp luñ war a def moom ci lamb ji lañ koy def nag bu jëm seelaas rek ñaaw dee rafet dee ar bu ñëwee day daanu jàpp ko te mu daanu ba ci wax ji sax maa ngi ci dégg mu ne mu ne mu ne mu ne saajkat téléphone nga ndax booy bu ñu tafoo suba gi bu ñëwee yoo lañ koy jox yaa koy jaayiwaat. loolu waxe loolu waxe loolu waxe waxee neexal laam la rek mais ñagas ku gis xar kanam sax xam ne carrément nit ku dëgg jub la. Hmm. waaw du du jël àllu saj du tax du fréquenté sax ñuy saj hmm. waaw man place laa yor maquette man laa damay jaay téléphone. du ma jóg sax bala maa xëy sax ay 9h jot wala 10h dem entraînement ba pare door ñëw xëy man du ma jóg fa jar xaj na kay daa yor la mel mu ñaaw rek di ko xalaat di wax di jéem a sos quoi mais man melo moom xam na ko sax ndax après mooy ngi naan ay neexal làmb rek mooy loolu mais xam naa ne meloo noonu waaw. mais combat bi naka nga waaw di ko waaj rek comme ni ma ko daa waaj ak samay mbokk. waaw waa Kombelaan waa Réew Maaw waa Réfone waa Touba Toul waa bët waa Fissel ñëpp ak waa Njaga Ñaaw. entraînement yi jàpp nañu trois séances laa doon trois séances waaw. bu combat bi jëmee ba des une semaine def deux séances mais ñu gis la ngeen ñëw ci biir géew bi yéen ñaar ku nekk taxaw concentré ci ay misigam mais arbitre bi sifflé ba arbitre sifflé nangoo ko may mu xalaat ku tuut ku nga bëgg a dox ci kawam jeexal làmb ji. non gis nga mbër moom boo wóolu sa bopp. Hmm. nga am entraînement am physique condition ku taxaw sa kanam da nga ko war a féer jàll waroo sax di xalaat ko di ko may mu la lu mu la yàbbee quoi man loolu laa jàpp te moo nekk si man itam du ma ko may benn adversaire adversaire day taxaw di yaay nax sa bopp. léegi gis ngeen xeex xeex bi tamit ñu ci bàyyi nee sa xeex jaarul yoon parce que dama doon sànni ay coup perdu rek couteau coup bëgg ko fee jëlee. no gars yi ku nekk sa xalaat rek li ngay wax ko mais mais xeex yi tamit xeex bi tamit jaarul yoon parce que coup yi dama dal na coup yi dal na dal kon de. Hmm. dal na waaw coup yi ma dóoree maa ngi koy gis. lan moo lan moo waaw moom ku moo ñëw ak sama ku ñoo waaw mu dem ardo ma dem ku nekk laal sa morom waaw. nga dem abi tourné waat nga doxaat ci kawam da nga koo faax wala nan nga bëree ak moom foofu. non loxo bi laa jàpp door ko manuel door tib tànk ba war ko ndomb jargal na la ko moom buddi ba si kaw teg ci suuf. Hmm. waaw. làmb ja jeex. làmb ja jeex te bëgguma ko daane noonu sax xanaa kay damaa gis buntu boobu rek. noo ko bëggoon daane. neneen laa ko bëggoon daane loolu action la dina ñëwaat dina ñëwaat si beneen làmb dinaa ko indiwaat si yeneen combat ndax booy xool sama combat yi yëpp ma daan benn bokku si ak moromam benn jël bokku si te si kàttanu yàlla combat yi may daan yëpp noonu lay dem si kàttanu yàlla. Hmm. benn si bokk ak léegi fan nga jëm ak ñoo ñëw nekk sa sama kanam bëri na gars yi nañ ñëw ñu bëri waaw ku ci mel ni Thiatou Daouda Fall ñang bu ndaw waaw armée bu ngeel gi. galaandoo ñi ngay ñi ngay laaj ñëpp kenn du ci bëri ak yow. ndax lan non parce que non parce que duñ seen adversaire la ëpp nu may combat ëpp ñu may victoire wala rek moom mais kenn du yow ñang bu ndaw du bëre yow. waaw si caat daal faal lan moo tax ñoom duñ bëre ak man. Ah, jàpp ne ñoo la raw ci làmb. nan lañ ma rawee si làmb. ëpp ñu may combat ëpp ñu may ma rawee ko nan lañ ma rawee si làmb ëpp ñu may combat ëpp ñu victoire ku ma jël ko rek nag maa te ku ma jël itam ëllëg di nga ñëw nga bëgg maa jël mu tës mu metti la waaw. ndaxte maa ngi bi yéen ngi ci yoon bi dox la dem. Hmm. waaw da ngay mu gën a tar daal. mu gën a tar kay amul bàyyi. <laughs> ngoon ngoon ma demaat entraînement tay tay ji tay léegi nii wóor na yàlla loolu moom ñëpp xaa xanaa di nga feetu sax billaahi du ma récupéré dara damay entraînement bu ma fat amee ma demaat alba léegi nii amul lu may bàyyi làmb moo ma tax a jóg moo ma ñor waaw lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo lay jàppale ak ñi nga xamante ni ñooy sant jigéen doyol aw ma seen fay képp koo xamante yaa ngi taxaw ñakas guddeeg bëccëg aw ma fayam gis naa taxawaay lépp gis naa ko vraiment kontaan naa bàyyiwunu ma benn yoon surtout kombelaan gi ma juddoo gi ma yaroo maa ngi koy maa ngi leen gërëm ak lépp tur woo xamante ak tur wër Combelane gépp maa ngi leen leen gërëm fii ba Drémaaw ba Njaan ba Combelane Guy gu Ndaw Pargine Njaay Njaana Jóob ba Jokkaan ba Reefan ba Tubatul ba Nganjal bàyyiwuma fenn ñëpp maa ngi leen gërëm waa Fisel Mbaadaan waa Bakapong Ndang Nam Jilaas Jofiyor waa Gore maa ngi leen gërëm jàpp nañ si combat bu baax ak waa Medina waaw jàpp nañ si combat ak waa Kolobaan surtout waa Magadu Kolobaan ku ci ñoom Abdou dafa jël ay bloc billets ay ñoom maas gars yëpp ay ñoom kaana ñoom baro sama gaa yi ñoom Cheikh Ahmed xam nga jàpp na si combat ñoom Nico gars yëpp ay ñoom Morgan Cheikh Diouf sama grand frère bi xaalis bëri la yëkkati jox ma teg ci taabal bi au ma fayam yaa awloos sama yaay bopp maa ngi ko seen di ko gërëm son na si man bu dégg bëccëg billaahi lépp moo ko res sama dara dugg si maa ngi sant Moustapha Dione sama patron di ko sant bu baax a baax jàpp na si combat bi ni war a jàppee ñoom Abdou Ndiaye ñoom Samba Dione Leuz booy yëpp jàpp nañ si combat bi ñoom Amet surtout Amet Amet bu yaraax bu caatu yaraax maa ngi sant di ko gërëm bi yëpp moo ko jaay yëpp ci loxoom la jaar ay ñoom Mbada Faye maa ngi ko sant di ko ay ñoom Matar Mbadaan Malick waa Fisel ñëpp maa ngi sant ak waa Difoncé jàpp nañ ci combat bi waa Saldavane ñoom Cheikh Tine waa Patersen waa raay bi gaa yëpp jàpp nañ si combat bi billahi walaay talaahi aw ma seen fay waa gore ñëpp nag jàpp san su ku ci mel ni Auguste Senghor xaalis bu bëri la yëkkati xaalis bu bëri la yëkkati jox ma ko ne ma demal nga indi ndam ni ñu indiwaatal indiwaatal ma ndam indi ma drapeau bi ay ñoom ñanga maa ngi sant leen gërëm waa Port waa Molwit aw ma seen fay gis naa seen taxawaay wóor na yàlla xaaju beneen ñaari bolok yooyu yëpp li ma poti jox yëpp ñoom ñoo ko jël waa gore waa Molwit ba Mol 1 ba Mol 2 ba Mol 10 jàpp nañ si combat bi bu baax a baax amoo seen fay di sant sama nijaay ñëpp gars yi jàpp nañ si combat bi ak képp koo xamante ni sa turam des na itam maa ngi ko sant di ko ak sama entraîneur su naa école nag amoo seen fay per Bada ak père Bala maa ngi ko bu baax a baax maa mbay jàpp na si combat bi waaw borom te FC xaw ma waaw jàpp na si combat bu baax a baax billaa walaay talaa di hommage sama mag bi Talla Diop yàlla na ko yàlla xarale àjjana waaw dafa génn àdduna avant may bëre waaw boo gisee làmb ji sax xaw naa si bëre pression quoi ndax li mu war na yëngal lépp si làmb ji ma ko hmm. ndax aar su ma demee ba war a yëngal rek sama xel si moom ma xaw a bàyyiwaat hmm. bilaay walaay son na si man ndiig sama sëriñ ak Tafa Ndiane waa Thiaroye ñoom ñëpp maa ngi leen sant leen gërëm ñoom bay Diouf gars yi jàpp si combat bi su ma limee damay juum des na ba waa ferrailleur yi Soufon waa Magadu Kolobane nag maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn waa Cité Brague waa Alfala kenn ñoom ñëpp ak waa Fora waa Fora nag seen combat bi seen combat la jën laa ak Alain sama mag bi bopp sama papa Alain victoire bi may naa la ko yaay borom victoire bi gis naa sa taxawaay kontaan naa bu baax baax si yow. di sant waa Medina nag waa marché Colobane moom seen fay. waa Fora ñëpp ñëpp gis naa ñu jàpp si combat ndax commentaire yaa ngi fa guddeeg bëccëg billaahi walaay talaahi lépp dégg naa ko lépp dégg naa ko kontaan naa waaw. gis ngeen tey euh, kii ñagas na leen seet si loon parce que làmb jum jóge démb bëri na combat booy daan na daan bi xanaa nag di ko ñaanal li ci kanamam dàq wala boog mbër yaa ngi fi mu jëfante ak ñoom di leen jox dig daje beneen yoon Wassare Làmb ak yeneen mbër yaa ngeen jëf